tout droit arène nationale lundi le 24 juillet 2023 waaw ni wax lamb ji dina am ak du am momo moo nga muy noonu di teg ay sabaram mbayang lu ma ngi nii ak turupam installé amateur yaa ngi ñëw benn par benn ku yéex tëb arène bi fees mbëri nag waaw kon lamb jaa ngi noonu ah day amam du am leer na legi lamb jaa ngi amna. ñëw leen seetaan si waaw tout droit fii ci arène nationale la troupe de Mbayang Loum c'est déjà installé waa Kër Momar Ngom ñu ngi noonu yeneen woykat yaa nga ne di ñëw su ma waa kër Ndey Faatu yi kon tey fii xar Guillaume Mbayang lum day Fatou bo ci bolé Momo Ngom muy trio waaw amateur yi caaxaan faaxe seetaan si leen arène national bàyyi waaw kay fi la lépp di xé lu ne fanken du ko jeex 10 millions lañ tégal mbeuri suba lay jéx suba lay jéx ci mardi bi waaw tey poids les yi daw suba poids lourd 10 millions du ay caaxaan waa xippil xool ñoo ko fi teg mu ngi noonu xippil xool waaw tey fii yéen waa kër Ndeye Fatou yaa noonu di ñëw te amateur yaa nii di ñëw benn par benn waaw mu ngi noonu daal ñëw leen